aasubillahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina an'amta alayhim xayrul maxdubi alayhim wala daalin amin rabbi asrax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yahfazhu qawli mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñooy nuyoo gën gi nuyoo di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa di jiital ci nuyoo bi xalifatul am al muridiya a Cheikh Muntaxa al Bachir borom Allah subhanahu wa yàggal ko fi lool te ko di siyaar mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ seqal jataay bi ngeen gisee sunu jataay tay bi mooy li nga xam ne baaxoo nañ ko di def saa yu màggal gi jub see muy màggaluk sëriñ Saxit Mbàkke di kenn ci njabootuk maam borom Touba gi bokk moom ci wàllu deret waaye nekkak moom ba keroog ndi sëñ bi jógee mu mel ne ñu ma war a am ak ñoom jataay ngir waajal bis bi nga xam ne moom moom lañ mal di bisu màggal gi ñu fàttali ñu lenn ci sun maam ju tedd ju di sëriñ Saïd diggam ak sëriñ bi waaye diggam ak ak njabootuk sëriñ bi waaye it diggam ak jëmmi sëriñ bi ci wàlluk mbokk mu mel ne ñoo ngi toog ak ay kilifa yi nga xam ne ñoom lañu ñu war a seqal jataay bi sëriñ Maam Moor Mbakke ñoo ngi koy siyaar bu baax te ko jox wàccuwaayam feggoog sëriñ Saalihu Mbakke di farfito di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñooy kilifay kër gi di xalifa kër gi sëñ Bay Babacar Mbakke aw jërinam sëriñ Mansour waaye jërinam Cheikh Touba Mbakke di ñaan sama borom laahu subhaanahu wa taala suñu jataay bi tey bi mbokk boole ko ci jataay yi nga xam ne moom lañ gërëm ba lépp li nga xam ne moom lañ ciy séntu ñu amee ko nu kawe njort waaye ñuy siyaaraale mboolem ñi nga xam ne rek ñoo ñooy techniciens yi alhamdulilah kon mbokk yi ñu fa yéene tàbbi ci émission bi ngir xamle sëriñ Saayit balay loolu dañuy bàyyi mbokk yi nuyoo kon sëriñ Mamor ñoo ngi lay nuyu baax te di la dalal waaye di la siyaar bu baax a baax di wax ahlan wa sahlan marhaban bikum nga nuyoo ñu mën a tàbbi ci émission bi. laaj lay ay laaj yoo xamante nag ñu ko mën a xamal ci sunu maam ju tedd ci sëriñ Saxiit ak lim bokk ak sëriñ bi buñ ca jógee jàll ci sëriñ Saliou bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax di lool ci jataay bi jiital ci nuyoo bi Sëriñ di teg suñu kilifa gi sëriñ Babacar Mbacke am sëriñ Sahid ak sëriñ Mansour Mbacke mi jëriñam ci wàllu kër gi di nuyu bokk yëpp di leen siyaar bu wér di doole am mbégte bu baax ci liggéey bi di santit bu baax ñi ngi xam ne ñu waral jataay bi jëmee ko ci bis boobu nga wax bisub sëriñ Sahid Mbacke bi mu jëlee ko ci Sëriñ Tuubaa loolu sëriñ Abdulaat jërëjëf sëriñ Mamor nuyoo bi eh, jot na tamatale na kon sëriñ Saliou yooyu nuyu baax di la siyaar di la wax la dalal di wax ahlan wa sahlan ci émission bi nga xam ne moom lañ war a door di wax rek nga nuyoo ñu mën a tàbbi ci biir liggéey bi. bisimilah waaleykum salaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa nuyu mbokki taalibe bi yëpp. maa ne nuyu julli ñëpp te jiital ci nuyoo bi xalifa général des mourides Cheikh Mouhamadou Mountakha Bachir ñaan yàlla doon ko fan mu gudd ak wér naal yim naal ci liggéeyal lislaam lépp mu sottal ko naal yeneen naal di nuyu sunu xalifa ak Cheikh Ababacar Mbacke di nuyu Sëriñ Saïd di ko ñaanal sunu borom yokk wér di nuyu it mboolem jëriñ ñëpp nit ngeen ko waxee rek Cheikh Mouhamadou Mansour rek Cheikh Touba ñaan yàlla sunu borom defal ñu tawfiq ak ndimbal ci yitte ji ñam ak yéene ci fas yéene liggéeyal sunu maam Sëriñ Saïd keppaaru Kër Sëriñ Touba lépp ngir fas yéene yaatal xéewal bu yaatu gëm jërë ji Kër Sëriñ Touba ngir yéene ko mbokk jullit yi mooy yëngu bi ñaan yàlla defal ci tawfiq bañ amee ci ngërëmul yàlla sunu borom subhanahu wa taala asalaamaaleykum alhamdulilah jërëjëf Sëriñ Saalihu bi rafet na lool te matale na kon mbokk yi comme noonu ñu leen ko waxee présenté leen jëm yi nga xam ne ñoom lañ toogal ngir ñu xamal ñu leen ci suñ maam suñ jàmbaar ju tedd ji seen nuyoo mi ngi noonu kon dañuy daal di tàbbi ci liggéey bi njëkk rek suñ jëwriñ suñu soppee suñu wëllëre yi nga xam ne moom nekkal di suñu nijaay sëñ Mamour Mbacké sëñ Mamour gannaaw nuyoo bi ak siyaar bi ñu fas yéene tàbb ak yow ci liggéey bi nga xamal ñu lenn ci li nga xam ne manees nañu ko laabire ci sëriñ Saayit ba waaye loolu dañ ciy njëkk rek sëñ Saayit ay waajuram sëñ Maamoor sëñ Saayit ñan ñooy ay waajuram ak yan année ban année la gane jamono euh, ak li nga xam ne bokk na ko ak sëriñ bi njëkk muy dem ci soobu ci liggéey bi bi nga xam ne mooy jaayante kër gi bisimilah sëñ Maamoor. sëñ Abdou Lahad ci am solo boobu kan fu bokk ak ñan la bokkal sëriñ soxit mi ngi bokk ci maaram bokk ci ñaari anam yëpp ci waajuram bu góor ci bu jigéen bu dee ci waajuru góor mi ngi bokk ci Ahmadou Khary Diop Ahmadou Khary Diop ma Abdou Mati ma Abdou Mati moo jur Serigne Sahid Ahmadou Khari Maram kon foofu la bokkee ci Maram ci waajurum bu góor bu ci waajurum bu jigéen di soxna ñaaw mi bokk ci Ahmadou soxna Bousso Ahmadou soxna buso Tafsir Mbàkke Ndumbe mooy doomam Tafsir Bakk Ndumbe moom mooy waajuru soxna ñaaw muy waajuru sëriñ Sahid de ci wàll gu mbokk ku baax ki Tafsir Bakk Ndumbe moomu di maamam mook soxna Asawaale muy waajuru soxna jaara ñoo bokk ndey baay ab jigéenam kon de ci wet googu rek noonu bokkee ci maam maaram bokkee kook seexul xadim ci ahmadu soxna buso bu dee nga ne ci um gane jamono kañu gane jamono mi ngi gane jamono fii ci bari kon dafa mel ni fiñ koy màggalee dafa cant gi indiwaat na cosaan li indiwaat na ko ci ëttam ndax fii mooy ëtt bi nga xam ne fi la Mati nekkoon léegi ci wàllum at mi yaakaar naa war a tombeel loolu yaakaar moo doonoon. ak saa kon laaj bi dafa mel ni jotal eh, jot na mais tontu bi itam gën na koo jotal. Mm, ci ganem jamonoom ak ay kilifaam ko dafa mel ne ni ñu ko déggee mooy ne Serigne Saïd ñaari waajuram yëpp ñu ngi askanoo ci maam mel na ni kon jombul taalibe la ci sëriñ bi waaye rakk lay ci sëñ bi njëkk taalibe gi alhamdulilah kon sëñ Maamoor ba tey dañuy doxalaat rek ci wànn googu sëñ Saïd dañ lay laaj ab yaram maam ñan ñoo ko yar ak ñaata at la nekk ci seeni loxo ba ni muy demee kër sëriñ bi foofu itam dañuy bëgg rek nga ñëwaale fi ci am njàngam ak ñan ñoo ko jàngal ci diirub li nekk fii ci Mbàkke bari waaw sëñ Blaat yaroo ci kër baayam ginnaaw bi fi baayam jógee kala nekkoon ci kër borom sàmm bu dee alam njàngam it foofu la jàngee am njàngam ci maam borom sàmm fi la nekkoon ak ay magam ndax jamono li baaxoon ci kilifteef mooy ginnaaw bu sa waajur jógee fi nekk di kilifa rek ci kooku ngeen di nekk loolu moo ko yóbbuwoon foofa dañuy laata dem ci sëriñ bi. alhamdulilah sëñ Mamour sëñ Saar ñan la bokkal ci waajuru góor ak waajuru jigéen maam ay magam wala ay rakkam. ñu bokkal ci waajuru ji góor ci sëñ bakk ñaaw xanaa na moo ci moo ci moo ci moo ci mag sa ñaaw tege ci soxna. Euh, asta ñaaw mhm. soxna yaasin soxna ñang ñaaw ak ibra ibra ibrawa sëñ ibrahima ibrahima Mbàkke mi maami borom kër gi ak euh, soxna xarin dumbe mhm. ñu la bokkal ci waajuru bu góor mhm. bu dee bi jigéen wit ñaar la ci bokkul rek ci des ñoo ñoo ñoo ko bokk ni Ibrahima ak soxna Xari Ndumbe. Hmm. alhamdulilah ak saay kon kon daal ni ma ko déggee moo di ne euh, sëñ Mbàkke ñaaw sëñ Mor bu sa ñaaw ak soxna Assa ak soxna Ñang soxna Yaasin ñoom la bokkal waajur ñaari waajur yëpp ak sa jërëjëf sëñ Maamoor ci leeral yi sëñ Maamoor sëñ Saanit Euh, dirub li mu nekk ci loxo yi kilifaam lan moo gën a ràññu ko ci euh, pas-pasam ci li nga xam ne nekk na ko ci biiru kilifaam njëkk muy dem ci sëriñ bi ak am njàngam jën yitte la ci amoon ci ndax dañoo gis ne amoon nag dog lool ci wàllu jaamu yàlla loolu xam naa des na ci ñëw ci kanam ñëw ci ak sëriñ Saaliw ca ñaare ñu mel noonu pas-pas yi nga xam ne am nañ ko ñi ci ëpp boo xoolee dañ koy gonewale buñ ko gonewaale mooy waral ñu mën koo màggale ba mën a am feeñal lu toll nii ci lim feeñal ci diggam ak Serigne Touba kon loolu de lañ ci mën a labiré. waaw sëñ Blaat xam nga sëñ Sayib boo seetee ñu baax ñépp seen cosaan ci kilifteef la la sosoo yamoon ci seen loxo kilifa ñu jàngal leen. ndax moom bu bu bu fekkiwutoon sëñ bi ci bu mu laat tamit fekkoon mu nekk ci yoon woo xamee ni nekk ci loxo yoo xamee ni loxoy kilifteef la jàngaloon nañ ko ci anam yëpp it ndax ba muy dem ci sëñ ba jàpp naa ne ci ci xam la fa demee waaye daf fa yóbbuutoon moo taxoon leneen moo feeñ ginnaaw bi mu waaye bu dee ci wàllum njàngam jàngoon na comme ni ko ni ni ni gaa yu baax yëpp di jàngee doomi soxna yëpp di def mm-hmm. ci wàllum xam-xam ci wàllum alxuraan mm-hmm. ci lépp mm-hmm. noppi woon na ca kan lañ mën a xam ci ñi ko jàngal ci ñi ko jàngal la xanaa nag moom da mel ni walla foofu moom gëstu gi moom gëstu gi quoi masha Allah kon xam naa dañuy taxawlu foofu ak yow nga dallu tuuti ñu dellusiwaat ci yow ci yi nga xam ne programme programme woon nañ laaj la ko kon jërëjëf ñoo ngi lay jaajëfal baax sëñ Mamor fas yéene tàbbi ak Serigne Saliou sëñ Saliou ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax tabarakallah sëñ Saliou <clears throat> ñun sunu laaj ak yow xaj na jëmul amoon nañu jataay waaye amoon na yu bari yoo xam ne dese woon nañ ci mën koo laaj ngir ñoo mën ñu koo tënkal ci sunu maam ju tedd ji Serigne euh, Saliou Serigne ñoo ngi tàmbaleeg yow Serigne ak Daaru Salaam histoire bi ñu dégg Daaru Salaam bëgg nañ nga leeral ñu ci mooy jamono jim njëkk a sëriñ bi. daaru salaam. maam dañoo wax ne sëriñ Saïd bi muy njëkk muy dem ci sëriñ bi nekkoon nag fekki na ko daaru salaam ci xew-xew boobu loolu bëgg nañ ci leeral. waaw jërëjëf si Abdoulaye ci laaj bi am solo bi sëriñ Saïd day foofu dañuy wax ne bi nga xamee sëriñ bi radiyallaahu anhu jóge na ci géej gi ci wër gi doon wër ba ak si Daaru Salaam euh, biñ koy ganale dañu wax ne Sëriñ Seyd da caa teewoon ca ngal nga ba wax ne li ko sóob ci dem dabi sëriñ bi jaayante moom demee ni foofu la ko feeñee waaw parce daal demee ni ñëwee ci ngaan gi daal ndax euh, ni ko suñ moo waxee léegi ginnaaw mi ngi woon kër Mamour Diarra kër Mamour Diarra mooy fii ci Mbàkke Xewar rek kon diggam ak Daaru Salaam jege na lool ndax benn dëkk bi la bu jegee ne ku tedd gi ñëw na mën na koo tax a dem fekk ci ngan ga loole nag nee nañu li ko sóob ci mu dem jaayante sëriñ bi ci ngan googu la ko ko dikkalee waaw daal mel ni bokkoon ci li ko ci kilifa yi ñu booba amoon nag ràññu ci diggam ak sëriñ bi wala mook jëmmi moom ci boppam ràññee ba mën a ràññu ko ak sëriñ bi ndax loolu feeñoon na ci moom waaw ndax ràññeeku gi demee cosaan la ci ñoom. Hmm. ndax soxna ñaaw. Hmm. wërsëg yu ko yàlla wërsëgale. Hmm. mu bokk ko sëriñ bi. bokkoon ci liñ dégg mooy moom ci boppam daan na wax ne. képp koo xam ne nekk naa ko moom te feeñagut. waaw cër yi muy daal dana ko xam. mu soxna si moom soxna si. waaw seen waajur jigéen ku ci mos a nekk moom te feeñagut cër ba mu yore dana ko xam. looloo tax ku mel ni sëriñ Saïd euh, bu feeñalee melo yi. am na rakkam ju jigéen wala magam magam la sax mhm. mooy juru suñ bàlla sax mhm. jëfam jooju mu jëfoon ci bi suñ bàll wéradee waaw mu am pas bu wóor mu wóor ko bu wóor ne mhm. ëndub fasi suñ tuwaay dong bu nga suñ bàll gisee wér euh, ci ko toon jigéen dég di magi suñ sayit kon bu suñ sayit amee melo yi du bettee dañu xam ne loolu moom seen cosaan la ndax askanu Mbàkke ci boppam la yàlla def ñu tedd cosaan ndax maamaaram yi seen maam am na dénkaan yu bari yu fi bàyyi woon hmm. képp ku sant Mbàkke na nga ba mu ne ci yow kon loolu yi bu fekkee sëñ Sayd gis na sëñ Tuubaa dana xam xel ki gis kana ndax loolaa tax bi mu bëggee ju jaayante jeeg hmm. lu ko mën a gàllankoor du ko tee dem donc kooku maamoon ba dem jaayante jeeg sëriñ bi hmm. nga xam ne bi mu agsee rek li ko sëñ bi njëkk laaj mooy baa ñëw ñëwoo ci man ngir ak mbokk rek baa ak mbokk tax laa ndax bokk na ndeysaan bare loolu ñu du xóotal ci Daaru Salaam ba tey sëñ Saaliw Euh, ndax jot na faa i gisee ak sëriñ bi. waaw xam nga sëriñ bi ak jafeem daaru fii la jafe maanaam tuur yi mu def yëpp bu affaire njaaru ci la ci la jafe gis waaye yeneen bari njaar yëpp ñu dee lu mel ni gànnaar métti woon na métti lu jiggi dayoo moom gis sëriñ bi jafewut bu dee ci yéen jolof yi daa sori woon mbooloo mu bëriwul kon koy jafe gisee waaye jafe gis gi nga xam ne da ngay toog ci kër gi ay weer doog gis moom loolu njaaru dong la woon ah yan état yi jaar yëpp eh, mm, bi muy ñëw Darou Salaam ci ngan googu ay atam fuñ ko natt fan lañ mën a natt ci ay atam. waaw xam naa du sori fukk ak juróom de war nga toll ci ci ci ci mm-hmm. ndax ni ko si Mor waxee léegi mille huit quatre-vingt-huit ba mille neuf cent mille ndax na bi ñibbi diggante boobu boo ko yi du sori ko kon dafa mel ni seen Saliou ni déggee ci li ci jot a leeral dafa mel ne pas-pas bi nga xam ne doon na am ci diggante mag ñi ak seenu njaboot nga xam ne moo feeñ ci diggante soxna Jaaratullaahi bu so ak diggam ak sëriñ bi feeñ ci diggante soxna Assawaale mi nga xam ne moo bokk ak. Euh, maam Tafsir Mbacke Ndumbe ni ma diggee sëñ Maam leeral ko ni loolu moo li nga xam ne moo topp seeni cosaan sëñ Maam ban jàngat nga am ci mbir moomu. waaw xam nga seblaat ni ko sëñ Saali waxee maanaam soxna ñaaw moo doonoon koo xam ne daa bokk ak sëriñ bi doon tànneef ci lépp ndax lim lim wax ku nekk ku mu jël rek ñaare bala ngaa génn bala ngaa ñëw jamono dana xam yow yaay kan xam xam lan mooy sa say mbir kon loolu daa mel ni kon ci askan wi la la la la nekk askanu maaram loolu ci la nekk ginnaaw sëñ bi nag daa fex ginnaaw sëñ bi da ko gën a daa am yeneen yu ci juddoo yoo xam ne nii da taxa ba lee muur waaye nag balaa ñoo dem ci sëñ bi dañuy mel-mel nañ ndax daa doon askan wuñ tànn wuñ defar mm-hmm. ndax sëñ bi mm. ndax mbir ëpp sëf boo ko dee sëf danga ko laytaayal moo tax laytaay boobu suñu borom fag ko ci maaram ba keneen ku ci ñëwit lañ cay dolli mooy sëf bi macha allah jërëjëf wax na ñaaw mel noonu ba ñi ci ñi ñi ñi ay njabootam am nuñ mel surtout lu mel ni sëriñ Sahid macha allah eh, tabaarakallah jërëjëf sëñ Saliou dañuy des ci yow sëñ Saliou sëñ Sahid kañ la fekki sëriñ bi kañ la commencé jaayante ak jaayante gi fan la ko tàmbalee. waaw jërëjëf Cheikh Abdou laat jaayante gi day ni ma ko waxee léegi bi sëriñ bi wàññeekoo ci tukki géej gi. Eh, ci nganuk Daaru Salaam gi ñenn ñi leen fi moom teewee gi mu ko teewee ci la ko la koy soobu wax nañ ne sax daaru ma naan xew-xew bi fi amoon ci lakk gi waaw daaru mën naan lakkoon na kër gi ko léegi dem demul dem jaayante sëriñ bi ñaari waaye da ci am benn bi mooy dañu wax ne dafa doxe fii Mbàkke Bawol bi muy jóg amoon na ay gàllankoor waaye dogu suufiyanke yi dara lu ko gàllankoor xam ne ne ku tedd ki Cheikhul Xadim bi mu bëggee bi mu jaayante Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci bëgg bokk ci amal badri bi amoon nay gàllankoor mm-hmm. waaye gàllankoor yooyu teewut amoon na lu bëgg mm-hmm. ndax gàllankoor yi nijaayam ci la bokk ak yeneen mbir ak jëmmi dëkk bi ci boppam sax moom mm-hmm. jaral ko génn dëkk bi dem Mbàkke dem Jolof yi moom seen seen dara mu seen yitte tey kawe ba dara mënu ko gàllankoor bi nga xam ne suñu sayit bëgg naa jóg ngir jaayante ji ak sëriñ bi magam ji ñu wax suñ Mor Bousso ñaaw la di la ci diisoon suñ Mor Bousso gunge ko ne ko bu soobee yàlla doonu am lenn lu lay gàllankoor mu dem fekk sëriñ bi gànnaar dem gi yombut ndax gànnaar ku ne xam ne ne amoon na ay conditions yoo xam ne suñ tubaab ci boppam mooy ki fii ñëw day doon borom xam-xam ñaareel bi ko am kattan tubaab bi tegoon ay conditions yi boppam hmm. mooy bala ngaa dem jaan àddi seeti sëriñ bi da fay lem fo da ngay def nangam nangam ci biir loolu teewut ak fi atam toll teewut ak dogoom may na ko mu dem fekk sëriñ bi gànnaar waaye ni ko waxee day mel ni dimbalul moo moo ko dimbale ba mën euh, ak Mauritanie boobu nit ñi bari wuñu hmm. àll bi ëppoon dëkkuwaay yi kon xam ne rab yi yi bari woon na ci bi ak yeneen yul yooyu addukat maam saay-saay si bari woon na fi lool waaye teewul rek <clears throat> dañuy wax ne saa yu masaana ndox ba waxtu dallu jot maanaam bu guddi jot yàlla da koy xéewale ba mel ni dafa agsi ci barab boo xam ne ay la fi dëkk bu fa dalloo ba bët set bu xëyee du gis kenn luy nuru nit loolu nag day mel ni lu kiimaane waaye jaar ci daara yi àll yi bari nga xam sama classe yëpp xam nañu loolu ndax mm-hmm. léegi daa nga ne ci àll bi jékki-jékki gis jëmm joo xam ne da lay wóor lay jëmm la yaru lampam nit wala nga gis taatu garab goo xam ne ab taalam fay tàkk mm-hmm. te boo dee doo fekk dara loolu moom ñu ñu ci àll yi xam nañ euh, waaye loolu lu yéeme la ndax doxi ba tàbbi ci ci barab lu nuroog dëkkuwaay waaw ah, xam nga nu mu daan jëflante ak ñooñu bu gisee ñu mel bu dee doxee sëriñ bi Cheikhul Khadim radiyallahu anhu bi muy bi muy jóge boo xam ne ndox muñ jëfandikoo mu sëñ bi ko waaye dañu jékki-jékki gis jënd la ba mu fees daal di wàññeeku waxtu ñun la def loolu leen li rek la mën na wéy di ko def waaw loola mën naa gunge seen sayid ba ba mu àgg ci àgg ci sëriñ bi bi mu àggee nag lii wane lii wane pas-pasam ak ak xam-xamam. waaw dafa àgg sëriñ bi ne ko sayid baa ak bokk tax laa jóg. Hmm. na ko déedéet li fi indi ñëpp moo fi indi maanaam nit ñi si ci yow loolu laa fi wut. mooy waaw fas yéene jaayante moom ci yàlla. Hmm. ko defee nag ne ñu suñ suñ tubaab daf ko xamal ne ko na nga ci fasaale sa bokk yëpp. mooy dégg suñu waajur ko wax léegi ne suñ sayid ay taalibe ay dafa fas yéene lim am bokk ak ñoom loolu yëpp suñu tubaab bi mu jaayantee moom nag sëriñ bi yëkkati xasida yaa ma ko di ma bay bokk na ci ay jël jël bi ñaari baat yooyu rek day tegtale doon gi mu doon gan ci kanamu sëriñ bi tekkiwul ne sëriñ bi ci sax la bind xasida gi waaye mën naa ne ci wetam mu teg ko mu dikk mu tarale ko ko jox waaye alaa kulli haal xasida boobu nag waaw moom la a jox ci xasida sëriñ Sayid am pas-pasu fese ne daal di mokkal xasida gi yaxal ko ci këyit donc ko jam mu daal di fay naan comme ni ko ma ñëpp baa ko defee loolu daal moom xanaa nga fàttali ñu rek ci ban at la ak boobu ci yan at la toll. waaw loolu day defe ne ci ñaareelu atum Mauritanie gi la ñeen di jàpp ci atum njëkk mi la te kon boobaa 1903 kilifa wax na ma moom daa jàpp ne Sëñ Tuubaa da ko yóbbaale bi muy dem Gànnaar hmm. te loolu tegtal bi ñu ci mën a jàpp mooy bu fekkee fekke woon xew-xew bi yow Daaru Manaan loolu mën naa nekk te am nañu saxal ne fekkee na xew-xew bi xewoon da waaw mën naa nekk da koy baal ndax sëñ jóge Daaru Manaan la jógee dem dem dem Gànnaar loolu loolu loolu lu jub la ñaar ñaar yi ñaar waay yëpp daal lu jub la waaye daal lu ci a dégg mooy mhm. teel naa na sëñ Tuubaa loolu nga xam ne diirub fukki at ak la laataa ñu mën ñaar fukki at laa na sëñ Tuubaa fukki at ak juróom yu teg am ñoo sa teg na ñett waaye ñaar fukki at yi moom man sëkk moom. am diiru bam ba ko fekkee gànnaar ba ni sëñ bi ñibbisee ci ñibbisi ku wóor gi taqalu ko wut ak moom. déedéet sëriñ bi yeewu na ko fi ni ñëpp waaye na yëf yi commencé nañ di neex comme ni mel ni ñëpp meloon rek li sëñ bi defal ñëpp la ko defal waaye dafa delluwaat ci moom nag yeesalaat jëlee jaayante ne ko daal lii yëpp maa ngi war nga nga nga dencal ma kon na xanaa moom bi mu dem fi la fekk fi la bàyyi ay waajuram. comme si tey waaw fi ba fi la bàyyi waajuram bu jigéen waaye waajuram bu góor moom bàyyi bàyyi ko waajuram bu jigéen yàgg na fi lool ak sëriñ bi moom nekk na sëriñ bi njaarim lu yàgg ba fa la génne àdduna sëriñ bi yeb la ñu indi ko kii pour Mbàkke denc ko moom soxna Dia waaw donc sëñ bi njaarim la wàcce bi njaarim la ko pour Mbàkke moom day ko sëñ bi fonkoon ndax li mu waxoon ne su ma doon amul jigéen ñaaw Mbàkke muy doon sama jigéen hmm. loolu sëñ bi ko dundal bu baax ndax taxoon na ba waxoon suñu sëyit ne ko ñam yi jëm ci soxna si fonk fonk soxna xam ne sëñ soxna ñaaw nekk nag uh, doomam jooju di sëriñ Sangit ci kër gu mag ak say ko moom beral googu mu lan moo sabab mu waral mu wax ne bu doon amub jigéen ñaaw mooy sama jigéen xanaa loolu war na am sabab ah, am na sabab saayir de hmm. sabab bi mooy yàlla daa dogal suñu Tafsir Mbàkke Ndumbe ak soxna Aswaalo ñeen yàlla boole ci bokk dañoo taxawoon lool ba daanaka sax wax nañ ne soxna moo yoroon lépp Tafsir moo ko yiroon daal moo ko moo ko yilifoon ndax moo ko dogal moo ko nga xam ne moom mooy maami sëriñ bi ndax mooy nijaay soxna Jaara Tafsir Mbàkke Ndumbe dañoo wax ne bi soxla ñaaw tollee ci war a wàcc bootu yàlla doo ko wërsëgali mu jamonante woon ak sëriñ bi mhm. te soxna ala asala moo leen boole yor mhm. boole leen defal leen di ñuy bindal ku ñu war a wàcce defal leen ko ci gën togg leen laax def ko ci gën bi ñu bokk ci jëfandikoo walaa tax sëriñ Tuubaa wax ne bu mën a amul jigéen ñaaw xam ne ci aati saa yi soriwul ak soriwul ak ñoom moom la maaseel daal ndeysaan kon day bee njaboot soxna ñaaw bi moom macha loolu ab cër la loolu day na sëkkub cër loolu doy na sa cër sëñ Saliou macha allah leeral yooyu am na solo lool euh, sëñ Saliou dañuy ñëw yoo ba tey euh, sëriñ Sahid ci diirub li muy nekk ak euh, sëriñ Touba suñu jàmbaar ju tedd ji foofu ci gànnaar jóge fa war a dem moom xomaat loolu ñu ci mën a laaj ci seen nekk ci diggante boobu njëkk ñu ñuy dem njariñ. waaw bi muy ci sëriñ bi de jamono ji muy nekk fële ci gànnaar. boobu mel ne ni riwaaya yiñ ci jot bariwul lool waaye li ci gën a fës daal mooy ko sëñ bi takkoon ndax ci boppam sëy na li ëpp ci li gën a fës li doon def ci kanam sëñ bi waaw diggante buub la ak root ak taxane gi ci moom li nga xam ne moom la aji tër bi wut def ndax sëñ Saliou mos naa ñëw xel kom am ñu laaj ñu ne dañoo taxani mooy li salaw lu mu dëgg dëgg yëfi dëgg dëgg tër bi mooy buub ak root ak taxan suñu tey noonu daf mel ni bi mu nekk Sëriñ Tuubaa li ëpp li ko Sëriñ Tuubaa daan jëfloo ci kanam Sëriñ bi la daan doon am na ci diggante bu gàtt nag boo xam ne daana ne ci tool waaye mel ne loolu yàggul li ëpp ci jëfam daal ci kanam Sëriñ bi daan nekk ci diggante bu beeg yoon ndax li ngay tegtale mooy euh, ni ma koy faral di nettalee jëlee naa ci sama mel waajur mu ne Sëriñ Abdul Xaadir ci boppam moo ne ko sa bàyyi Sëriñ bi Sëriñ Tuubaa di nekk ci yéen Jolof foofu Sëriñ Tuubaa mas a toog rek Sëriñ Sëriñ moo ko daan bu boobu set amal li ko waral mooy ci yéen Jolof Sëriñ Tuubaa nekk doon ci dëkk ba dafa amoon feneen fu ñu ko beroon kon foofu fu mu mën di defaa alaakulli ci buub ci buub la ñu dëkk. Mm-hmm. donc suñu doxalin wax na sa waajur sa bàyyi suñu sayid toog amata toog ci ceen joof rek moo ko daan buub ah, la. man daal loolu moom net li bu wér la yëg seen doxalin. macha ñoo ngi profité di siyaar njabootu si Abdou Khadir gi yëpp ñi nga xam ne ñooy suñu sëriñ yi kilifa gi di ñaanal seen njaboot gi sama borom yàggal fi leen yàggal leen fi lool te may leen wér te jëmi Serigne Abdou Khadir sama borom dolli koy maqam yi may ak ngeen la leer te tax ci barkeem comme ba tey Serigne Saliou dañuy gën a jëm ak yow rek ci sëriñ Saïd gannaaw bi mu jógee gànnaar ànd ak sëriñ bi jëm Njaareem euh, foofa nag dafa mel ni bari na ay xew-xew yu baree baree bari yoo xamante ni xew na fa loolu dañuy njëkkee ci sëriñ Saïd ci bi mu nekkee sëriñ bi mel ne amoon na fa kees goo xamante daf ko beraloon ngir mbokki mbàkke yi ku ci ñëw mu dalal la. loolu nag mel na ne ab cër la sëñ Saliou ci loolu lañ bëgg dugg ak yow nga leeral ñu ci lenn ci li nga xam ne sama borom dimbali na ci nga mën ko ci leeral bisimilah. waaw jërëjëf sëñ Saliou day sëñ Tuubaa daa bokkoon ci lim aada woon mooy askan wi nag ka fa jiitu ci moom ka fa ñëwati yaa koy moo moo koy dalal maanaam ci ñooñ Mbàkke wala ñooñ Buso wala ku mën di doon ki jëkk ci moom rek keneen ku ñëwaat te bokk ci askan woo yaa koy dalal loolu demee njabootu boppam gi doon nañ ko ci. kon moo dëgëral ne sëñ Saliou dafa njëkk ci askan déedéet njëkk fu ci askanu maaram waaye xam nga askanu maaram maam Cerno ngi ci biir hmm. waaw kon suñ see njëkk fi ci askanu maaram waaye moom bi mu fa nekkee dafa amoon kër bokk moom suñ see suñ bi mu nekk suñ daaw boobu maam Cerno yooyu kon bu yàgg yàgg yàgg waaye dafa newoon am fa kër boppam bokk mi ku fa ñëw nag ba ci waa njatara ñi sax si mu wax sa jatara nga xam ne doomu ndeyam la su ma saa ñëw di bi suñ ko boole moo koy dalal hmm. ñu fi ñëw nga xam ne ñu ngi jaayante si liggéey ku mel ne Seexu Sala suñ Sayid la ko boole mu dalal ko moom bokk na ci bu ko suñ tubaab di boolee sëriñ bi suñ mu tàggat ko ci yëngu kër gi. waaw wax na ci xew xew eh, mbas mi ci dëkk ci njaareem. waaw Seexu Sala. ndax suñ Sayid mas na ànd moom ñu toog ci kanam suñ tubaab. waaw suñ tubaab radiyallaahu anhu naan dégg naa eh, mbas mi dal na diw dal na diw ak diw. ak diw ak diw ak diw biñ noppee ba génn suñ sëy dafa wax suñ seexu sàll ne ko ndax xam nga li tax mu doon rëdd baaraam ci suuf ak li tax ma mu ko déedéet mu ne ko ñi mu rëdd seen baaraam ci ñëpp dañuy faatu dañuy faatu mbas ñu doon bang baaraam bi yëpp dañuy wér xam ne loolu suñ seexu sàll agul ci xam ko suñ sëy da ko suñ da ko boole nag suñ sëy da ko boole suñ sëy nag ngir mu ko loolu waaw ngir mu lu noonu kon ci li taxoon li wax ne sëñ Tuubaa ku ko jiitu rek moom yaa mag donte nag say mag a ngi fii waaye ku ko jiitu rek ndax dégg naa ci riwaay boo xam ne maa ko jëlee ci Mor Say yàlla ko suñu borom doolu yër ma nekk mu ne ma sëñ Mbàkke Buso ci boppam moo wax ne man de ku jóge ci sëñ Tuubaa waa xen kenn du la tudd di tudd kenn waaye Mor Buso meloo ma doy na ma sëkk sëñ Mor Buso magam da leen mel waaw sëñ Mbàkke Buso meloo yi sëñ Mor Buso meloo doy sëkk ndax day doomi soxna bu noppi am xam-xam lool bu noppi di taalibe loolu yëngu te boole. incha hmm. ku jógee suñu mooy waaye moom wóor loolu la xam moor mooy tegtal yi nga xam ne tegtal na lépp lu bokk ci maaram rek waajtaay nga ndax loolu bu fekkente ne dégg gis na ko ci ne ci déggee moo di ne gannaaw moor bu soo moor yi magam lam ci ëppale mooy dem ko dem dem gim dem ci sëriñ bi loolu la koy la koy la koy sutee ndax sëriñ bi moom leen daa yëmul moom lépp lu fa dem yemul lu fa demut kon ci loolu la ñuy profité di ñaanal mboolem waa kër sëñ Mor Sole yëpp tabaarkalla sëñ Saliou ba tey suñ Saliou yan liggéey la fa yoroon ci kërub njëriñ bi ci yi ci gën a fes donte bari na waaye nekkam ak sëriñ bi ci yi nga xam ne euh, fesoon fe fe fes na moom fes na ne yooyu sëñ Saïd lañ ko bàyyee ci moom lañ ci gën a ràññee ci tënk looñ ci mën a tënkal. ci njëkkante mhm. a fesoon mooy wàllum euh, wax nañ ne sax moom ña ci daan yëngu moo leen daan tànn am ña ko daan àndal. rootum ndaa yi fu dañ ko doon root ci biir kër gi wala dañ ko doon root see waa ci njëlbeen de Touba lañ ko daan rootee nañ ne sax ñoom seen pëstéef àggoon na ci dañ daan wut ay yenn yoo xam ne amut toog noppalu wala boog da nga yenn ko par doo ko mooy da ngay gas ba gas bant bi loo xam ne day njoole ni si jëm xëy na boo àggsee da ngay dikk ba tolloog moom rek bagaan gi lonk ci nga wàcc. soo dal la bu war a jógaat da dugg daal di roof daal dem waaye loolu nag bu fekkee distance bi ci espace bi ñu xam ni ni mu toll nii xel mu rafet mënu koo jàpp waaye nag mbirum yàlla demewul noonu ndax li suñu too xam ne yëngu ci sëriñ bi sa mbir noo lay demee mboolem bi rek la ndax euh, suñ tubaab moom moo mel noonu ndax moom day mel ni bonus la daal ci loolu man naa gàtt ci ñoom sax ndax yoon yi guddee wu mën naa bañ a guddee nii. léegi nag yàlla dogalee ñu ne si jëmm boobu wax waaw mu yilif leen. Hmm. ci biir loolu ci la gasee teen bi nekk biir Njaareem. teen bi bënnee nag Sëñ Tuubaa wax ne li ma sama borom sama borom xamal na ma li ma defaloon ci teen ba ci ay ramadi demal na ma teen bi. ci meenum sëñ saa it moo gas teen ba mu bënn. waaw bu fekkee du gasu ko moom dong yi ñoom gas mooy yilif moo moo ko àndoon ñoom ndax ginnaaw mooy kilifa rootkat yi hmm. ñoom ñëpp bu ñu maasee woon gas seen bi dinaa seen yan waxtu yan ko gas diirub lim ko gas ci li muy toll. weer hmm. diiru weeru koor daal la guddi ba guddi la ko daan gasi nag gas du woon leen xam eh, kon moom liggéey guddi yàgg nañ ci ndax sama xel dafa mel dafa dem ci histoire bu ma mas a dégg ci diggam ak Sëriñ Mouhamadou Moustapha ci eh, ci li nga xam ne moo doonoon eh, woote yi mu daan woor ci ay tool nga xam ne bu masaan a xëy gis waaru yaat woo xam ne dañ koo def rek day naan sanita xam naa dañ mel ne liggéey guddi yàgg na ci ñoo ngi siyaaraale mboolem waa Taïf yëpp te di leen <clears throat> ñaanal jàmm ju yaatoo yaatu te di leen woo ci bis bi nga xam ne mooy bisub sax Sakhine Mbacké di jàmbaar joo xam ne dafa liggéey lu woon sëriñ Touba di jàmbaar ji nga xamante ni moom la ñëpp yaakaar ba jot ngërëm ngërëm loolu moom la ñuy sant moom la ñuy dabu ngir taasu ci barke boobu mu war a doon le 17 le 2 novembre. di war a dëppook alxamis gi ñu jëm incha allahu taala sëriñ euh, Mamor Mbacke dañ dellu ci yow tuuti rek ci yi nga xam ne moom la sëriñ Saxiit jëmmal ci wàllu njabootam ci biiram ak wàllu liggéeyam ak bi gannaaw bi nga xam ne <clears throat> jóge na ci sëriñ bi ci yi nga xam ne moom la samp ci ay bànqaas ci ay dëkk wala ak njabootam ci ab yaram bu ko defee euh, ñu bàyyi tuuti sëriñ Saaliw mu dal ñu mën a demaat moom ci njëriñ bisimilah sëriñ Mamor waaw jërëjëf Cheikh Lat bu dañ see ci ñu yar ñu jëmmal njaboot ak sëñ Mor Bousso gi dañ ci tudd ku lu mel ni sëñ Abdou Sakkoor ak waa kër boppam yi ndax na leen ba dañ mel noo xamee ni ñu ñim yar lu sëkk ndax sëñ bi sàkkoor dooloon na koo xamee nit ku feesoon dal la te sëriñ moo ko def ndax yaakaar naa ne nga gis jëmmi nit ku am benn cër bi ba wormaal Tuuba ba aw daal du ko fi sol loolu jàpp naa ne boo ko dee seet ci mag ñi amuti ci waaw ñaareel ba ba ci soxna fadde jotee ci Ibou Sakkour moomu hmm. bi sëñ Ibou Sakkour bëggee génn ca nam ko téye ci ci xam-xam ak ci baatin hmm. sëñ Ibou la ko booleel hmm. leetar ba mu bind sëñ jox ko jox ko sëñ Ibou mu yót ko sëñ Ibou daf ko xamal ko ne ko kii koñ mën a gàggantikoo ci taalibe la ba tax na sëñ Abdou Lahat fogoon sëñ Abdou Sakor yóbbu ko belal taqoo moom ba foog ay waa këram xërtal leen ko boole ko ñu ne ko li ma bëgg ci yow nga taqoo ak sëñ Abdou Sakor ñoo moom moo tax ma am kon loola te defarat sëriñ Sayid moo jaar foofa kon moo waral keesu sëñ Abdou Sakor ci biir belal macha ba njabootu boppam sax neewoon foofu ci biir macha allah ñoo ngi siyaar bu baax a baax njabootu suñu Abdou Sakor wax nañu ñu bari fa lañ gënee àdduna euh, ci sababu ko soxna Fat Dia ñaan baax a baax sama borom la subhaanahu wa taala yeesa ci ñoom yërmande ma ne na loolu day wane melaw yaru mag ñi ñëw ci ñim yar ba tey ñeneen ci ñim yar ci ñoo xam ne meloo nañ lu mel waaw boo dee xoolee ci njaboot boppam bu dee ci taalibe yi moom li aju ci Mbàkke li fi nekk ci magi taalif daan ñëpp suñ Cheikh lañ lañ yoroo am Salaan mi ngi fii suñ Salaan mag la moo xam ni suñ suñ Cheikh moo ko hmm. barki de moom dem nañ ko këram mu doon ko ku ku mucc ayib hmm. suñ Mor Talla Njaay hmm. ca Taïf ba tey mi fi moom ci wàllu jabootu boppam bu buñ ci tuddee ki jamonoonteeg ñu bari si ñu ko man ko xam sëñ Mourou Ablaye sëñ Mourou moom képp koo xam ni xam nga kër Sëriñ Sayid hmm. xam ay eh, barabam hmm. gis nañ sëñ Mourou Ablaye ni mel doon koo xam ne jàmbaar la hmm. bëgg rek bëgg moom it ku doon jàmbaar ndax dafa bëgg jàmbaar waaw ndax moom daa wax sax nit ki doxe ni muy doxee ndax ndax doon jàmbar bu dee ci wàllu njaboot xam ne ay ay lañ sëriñ Isa ñi waaju mi moomoon kër gi hmm. ak sëriñ Balla Asta ñu ñëpp sëriñ lañ defaroo hmm. ndax ñooñu yoroon na leen ca kër gu mag kër njaari bi bañ dikkee sëñ bi si seen loxo la ko teg ngir mu tarbiyee leen yor leen ba ñu fa àndee ñoom jóge fa am na ba tey ci sëriñ Ibrahima Mbacke yaakaar naa ko xam Daaru Salaam ñuy wax Bilal Oga ak sëriñ Ibra Diop ay mag la xam ne sëriñ sëriñ Chahid moo leen defar moo leen tarbiya mm-hmm. bañ mel noo xam nii maanaam tarkal daal macha allah <laughs> baarakallah sëriñ Maam Mor jërëjëf ci leeral yooyu. beneen tudd nga ci dox loo xam ne lu ma bëggoon a laaj la muy sëñ Balla Assa def naa sëñ Balla Assa moo ne woon euh, njaareem moom la sëñ bi doon dësloo bunt bi. non <laughs> loolu fàttali ñu ci tuuti loolu xoromu la demee na ne dësal ku bëgg wax dësal ma bunt bi rek mu daal di faqit loolu xanaa <laughs> daal looñ ci mën leeral ci fànn ko la ci hmm. tegtal ci li ñu bari di wax. ci nettali yu bari yi nettali sëriñ bi ci njaareem. gis naa sëñ bi sëñ bi nee na day loolu firnde la ci lu ne mën demee noonu. ndax sëñ Balla sa am naa ak sëriñ bi ab diir njaareem waaye ne benn benn yoon boobu la ko mas a gis-gis bu leer xam ne sëñ Tuubaa dana tëll ci buntu bi yoon ci moom fekk boobu suñu sëriñ moo ko bàyyi woon waaye ne bi sëriñ bi ne tëll rek dafa daw sëñ bi ne ko yow ma dee des loo buntu bi rek ngay daw nga xam ne bi sëñ Seydi ñëwee dana ko bu ëllëgee def bàyyi ko xaw a dëgër boobu daa fekk mu fay doog dem nga xam ne sëñ Balla Assane mii euh, sëñ sëñ sëñ Mor wax la sëñ Mamour wax léegi ak sëñ Issa Mbacke mi ci barabam ñoo ñoo sëñ Seydi sëñ Seydi seen nijaay la ndax moo ko seen waajuru jigéen ñoo bokk ñoo bokk ndey ak bàyyi waaw loolu daal xam naa xewoon na fa ndax sëñ Seydi nag ci li si Mor junj mag ñim tërbiyee ñëpp ni moom daanaka lañ mel amuñu génn bëgg ci àdduna te da leen a tërbiyee ci ñaar mooy jàng xasida ak liggéey jox Sëñ Tuubaa moom ci loolu la amul dara ñetteelu ko jàng xasaayit ak liggéey joxe te loolu demee mooy cosaan ndax Sëñ Saaliw daan na wax ne li mbir mi de kenn gënu ma ko xam taman loolu dong laa gis ma koy def Sëñ Saaliw jàng alxuraan jàng xasaayit ak liggéey jox Sëñ Tuubaa loolu la si la yare te Sëñ Saaliw loolu dong la doon yare te Sëñ Saaliw moom wax nañu dégg ba tàyyi ne yoon yi kenn gën ma ko xam. ci loolu te lii laa gis ma koy def ndax ñim yar ci loolu leen yar Sëñ Sayid ñim yar ci loolu leen yar Mbaye Mortala Ndiaye man benn bis. mag mi Sëñ mag mi nga xam Sëñ Sayid da ko yar. ni Sëñ Mor doon junj léegi mu ne ma moog Sëñ Mour Ablaye ak Sëñ Mour Xari. loo gis ci fii mu taxaw daanaka ba nga xam ñoom ñoo ko fi def wax dañoo doonoon ay jàmbaar lool lool lool ba jéggi dayoo. waaye li ak liñ mën di mel lépp ci kàttan ci jamono booba ak dëgëraay dégg naa sama benn waajur suñ Mansour Mbàkke yàlla na ko yàlla yokk wér mu ne benn bis limal na may mag ñu bari ne suñ sëy daf leen doon àndaleloo benn bant boo xam ne day doon loo ñag bi ne nag ñag bi nee ko defar waaye na ngeen fi gas si ak pax waaye bala ngeen gas pax gi kii euh, euh, bant kii gi garabu yiir gi nee ko sas li ci bi doo gas si pax mm-hmm. yàlla dogal nag ñu gas pax ga fàtte ànd li bant ba gis nga say ñëwee ne leen ah santoon naa leen ko de ñu ne ca jéem jéem jéem mënuñoo fexe ba yëkkati bant bi sànni ko ci taari ñag bi sëñ Seydou daan yéen a ñàkk yéen a ñàkk njariñ mel na moom képp moo ko moo ko yëkkati boppam sànni ko mu tege ci kaw kuus bi neen xanaa lu yéen ñàkk ñàkk njariñ war ngeen a puus mu sës ci ñag bi mel moom moom képp moo ko yëkk loolu sëñ Saliou dama xam ne am tur ngaa dem ci kii bi tuuti sëñ Cheikh it xasida ba noppee nga jàll ci waaye sëñ Cheikh ci yor gi nga xam ne yàgg na ko jàmbaar gu foofu ak njàmbaar da caa feeñaat ndax euh, ay mukkalaf ay mag yi jëm yoo xamante ni bantu giir àndale ko tëleen ba mel ni yow yaa mujj àndale ko sa bopp loolu dafa mel ni xel daa dem ci jamono yi bara moom bi muy daajlu bi ñuy daajlu euh, kër ga làkk ba euh, wax nañ ne sëñ Cheikh it yi ci ëpp fukki seng fukki paquet seng daanaka yenu ca boobu seng lu diis la woon cinq bërigo yi la woon mu ci daan mu ci daan waaw daan yenn lu toll ci ay paquet yu bari léegi ci loolu lañ ci mën a leeral ci bu sëñ masaana dégg loolu bu ko defee nga mën a jàllale ci sëñ saayit ak xasida yi bismillah sëñ saayit waaw jërëjëf sëñ daal xam nga yooyu day bokk ci xisas yi nga xam ne daa ne daa biiru ndax fukki mu kàllaf luñ mënut a yëkkati kenn du ko mën a yëkkati waaye nag day fekk mbirum yàlla day cay ne loolaa ko loolaa waroon mën a nekk waaye fukki mu kàllaf ma ngi jëm moom luñ mënut a yëkkati jënd jëm du ko mën a yëkkati. bu fekkee daa mel ni ñoom rek. loo ko mayoon mu mën a yëkkati moom moo ko may mu mën a yenn seng yooyu ci niñ koy waxee. ndax wax ne seng bu ko masaanaa yenni ko sëñ bi naan nañ ko gaaw tasaare ba la ko a jàpp. waaw loolu moom day wane ne kattanu sëriñ bi moo ca ne ndax sëñ Sayid bi muy nekk fii ci dëkkam bi mujj sanc mi waa Kër Daam. bari na mag ñu bokkaloon nekk njaareem dañ ko fa daan gane si te ñenn di naan ko. xoolal ma ba xam ne sëñ bi defoon ci man mi ngi ci man mi ngi ci man ba tayam déet ñi sëñ bi defoon ñi bokkaloon ne wax daa ko fekk fii ci waa daam di ko di ko seetu ci ñoom rek mu doon ko borom pas-pas ndax benn bis benn bis toog na genn yor-yor rek suñ fàllu agsi ci kër gi ak suñ mbàkki Madina daje fi suñ sëyit dafa genn yor-yor suñ fàllu ak suñ mbàkki Madina suñ sëyit dafa dafa daw dem ca làkkum njàmmim ba toog fa nangu leen teg bët suñ Modou Laay mii sëñ bi tudd léegi la wax ne ko Modou seetal ñu waa kër suñu doy lu ñu bëgg nga defee ko man damaa xam luy bëgg a xew xam àdduna bëgg tukki wala itam waa kër suñu doy xëy xëy daje sama kër gi nii nga xam ne keru mi nga xam ne seen doom la ñoom doomi si Fallou ñëw na fa bis suñ sëy ne ko sa tànk bu wàcc ndax sama lal bi bu wàccee da ci toog te boo ci toogee dootuma ci toog te loolu lal yooyu la ñu waxal li nga bëgg ma defal la ko da nga wàññeeku mu ne ca boobu jamono mu ne ko lal yomb bi mu noonu boo ci xasee toog du ma ci toog man lal bu doomi suñu ma ci toog du ma ci ah, di daal koy dem bi mu sax comme li baaxoo xam rek ñu ne ko ah, da da da am yu ko wax mm-hmm. suñu cheikh ngir bëgg a corriger wax yooyu ka ko waxoon loolu la yónni ci suñu sëy ko demal ne ko mu bojjal ma sama tool ba ci bërëb sàngam ndaw li fi mu toog wax suñu sëy ba si daaneel rek suñu dafa sant waa gi ñëpp ci saa ñu jug dem ci toole nga xam ne jàpp luñ ko bis jàpp luñ ko waxtu bi ñu diggalee accès rek mhm. lañ ci daal di jublu ba kooka demaatee suñ Cheikh laaj ko nu mu def nag mu ne ko ah mu ngi fa sama kàddu daanoo rek fa lañ fa lañ daal di jublu jëm ji mu ne ko ko wattu leen doomi suñ tubaay ak ñu defar mhm. wattu loolu doomi suñ tubaay ak ñu defar kon bu ñu eh, dugg ci xasida yi ni nga ko waxee xasida nag mooy foru suñ sayid moom xasida yi xasida def ci biir laaj bi njabootu Serigne Touba gi nga xam ne doon nañ koo gane hmm. dafa mel ne dégg nañ lenn ci njabootu Serigne Touba gi ku mel ne soxna may la wala bu ko ma daan a gane day daan day nekk ci di ko laaj di ko tontu loolu la ban gan njaboot la ci njabootu Serigne Touba gi ak lañ ci mën a libar laa bi naa loolu day xañ na mën naa am liñ ci xam du yaatu waaye li ma xam tam nguur daal mooy am na ci doomi Serigne Touba jigéen joo ne gis naa mbindum loxoom moom hmm. mu bind ko jox ko Serigne Seydi yokk ci yitteem suñ siir fayal kooku loolu mu teg naa ci bët leetal boo xam ne doomi suñ taw ci jigéen waaw waaye nag ñun daan jëflanteeg soxna May ma xam ne jotaguma ci woon macha allah kon xam naa jamono boo gëstoo des na ci kon ba tey suñu saali man des na ñëw rek ci suñu saaxit ak xaside ndax wax nañ ne ko ci amoonub cër la waaw ku amoonub cër la ci xaside yi loolu loolu la ciy laaj bu baax ba dañ ci mën a laaj looy ci wàllu ko suñu sayit de moom mbirum yëpp li ci ëpp xasida la ndax fese na ko ndax liggéey bi mu daan liggéey ci kër këru njaareem gi bi mu génnee njaareem ak lépp rek daw ko teewee jàng xasida wax na ne daan yor jukki bi bu yor jukki it ma ngi tari te loolu mag ñi mu yaral boppam te ma xam leen ki ma ci xam muy maa Ibrahima jóg maa Abdoulaye Ndiaye mii nekk nañ ci peggam lu mu daan def da koy boole tari ne ak waxtu mu koy def waaye seetlu ne café moom bu ko daan tàngal mi daal di la daan tàngale moom hmm. loolu moom seetloo nañ ko moom bu daan tàngal café suba gi mi daal di lay tari waaye duñ def dara ci loxoy nen lim ci mokkal bari gi dafa jéggi dayoo ñaari tegtal mooy bi nga xam ne ñu ngi ko jëlee ci suñ Mor Say Mbàkke nga xam ne da daan imla mooy da ko daan muy bind nee na li ma bind ci xasida lépp de ñeme naa ko sotti ci daanu ci biir suñ Mor Say Mbàkke nee na li mu bind ci buñ ko sotte ci teen mu daanu ci biir ngir ngir bari gu mu ko bari suñ sayid moo ko daan sa muy bind xam nga moo li xew téere yombut ki mokkal day toog di wax rek ni ñuy bind moo tax nga gis ci bind yooyee sax yoo xam ne boo déggee arab yax bi du day day dëng ndax buñ la ko waxee ni la ko waxee ni ñu koy bind ni nga ko déggee noonu te fekk boo ko déggul arab doo xam baab lu mu doon loolaa ko loolu waaye li ci kiimaane mooy xasida gi daa bees ci maam Thierno ak maam Thierno ni mu amee wàccuwaay ci Sëñ Tuubaa. leeral la leeral la moom xasida kon maanaam euh, maam Thierno Sëñ Tuubaa da koo joxoon xasida ak Muxaddamatul Xidma. fekk lu jiit loolu sëñ say daa war maaloon lool ngir wàccuwaay bi am ci sëriñ bi. waaw mosu ko waaye maam Thierno di borom cër. bi yàlla dogalee ñu jox ko xasida gi sëñ Sëy nuyu si ne daa mel ni dégg naa da ngaa waxoon ne fas nga yéene lu Sëñ Tuubaa bind rek boo gisee mokkal ko mu ne ko waaw maa nga ci ba léegi de mu ne ko sëñ bi de am naa xës di ko xam naa sa bët musu cee tege sax ba nga koy mokkal sëñ ko gum doon mu ko mu ne ko ah ndax mën nga ma jëg mën nga koo teel mu tari mu teel ko mu tari ci lu bari wax leen dafa tari njëlbeen xasida gi tari digg bi tari mujj gi loolu moom ko ko defoon ci alxuraan ñoom day mokkal alxuraan lay wax kooku loo ko defit dinaa la ko laaye maam Cerno neñ dafa dem mboolem addiyu gi suñ sëñ mas a jox da koo delloo ne ko yow sa addiyu gi suñ dong ko a lekk daal koy delloo loolu moom xew na te siiw na bokk na ci li ko dikkalit ci xasida yi euh, kilifa nee na jëlee na ci Mor Mbaye euh, ne ko sëñ Sayid Mbàkke de xam sax wax wax ji ni mu moo lay xamal lu wér la lu si lu si Mor jàpp ndax da ñëw di ko tàggu tukki yooyu rek muy muy waxtaan moom ci mbiri boppam ba yàgg mu ne ko ndax denc nga soxna mu ne ko waaw mu ne ko koo denc mu ne ko sëtu suñu Sayid mhm. mu ne ko suñu Sayid Mbàkke maa la ciy nettali loo xam ne xam naa ne mosu ko dégg daan ko suñu sëyit mas naa toog ñetti fan ci benn taatu garab ngir fas yéene natt li mu mokkal ci xësi Sëriñ ñetti fan xëy xëy jékki-jékki dem na Sëriñ Tuubaa kenn mënu ko xam nañ ne nit mas na koo laaj na ko sëyit yow loo mokkal ci xasida <laughs> mu ne ko nu jot toll waaw kii ko laaj dana ko nu jot toll waaw loolu moom maanaam kenn ni yitteem toll waaw toog mën koo déglu pour mu tare ngay dégg nu sa yitte toll rek moom nee na moo koy toll loolu moom nit nit laaj na seen sëy loolu moo koy xëy mu wax lu mel noonu kon xam naa ñu taxawal foofu rek ba laaj yi ñëwaat wala incha <laughs> allah yow macha allah kon dañuy profité di siyaare mboolem njabootuk maam Thierno borom daru gi nga xam ne moom lañ bokkal sëñ Ahmadou Khary Diop sëñ Ahmadou Khary Diop mel na ne ma bokk ak Serigne Saïd ci wàlluk maamam kon ñëw ngi leen si siyaar wax te ñaan xalifa bi sama borom la subhaanahu wa taala dolli ko fi yàgg lool te dolli ko wér kon ci biir loolu dañuy ñëwaat ci sëriñ Mame Mor Mbacke man ñoo xamal ci sëriñ bi ñoo xamal ci sëriñ Saïd yan dëkk la sañ ci gannaaw bi nga xam ne moom la jógee ci tukki bi wala boog gannaaw bi nga xam ne moom la euh, jógee ci sëriñ bi maanaam njariñ yan dëkk la réalisé. waaw ak ci biir dëkk yooyu ci ay liggéeyam ci nga tënk ñu ko rek ci ay minutes yu gàtt mel na ni sama gars ñu ngi naan heure bi yat jege na boo dee dëkk yooyu ak yi nga xam ne ñoo daan liggéey. waaw bi mu bi jógee ci sëriñ bi mu ngi sañ ci ginnaaw bi mu demee ci kër sëñ Mor Soxna mi ngi sañ ci sëñ Mor Soxna sax moo ko moo ko moo ko dogaloon fi ñuy wax ndokk waaw ndokk googu la sañcoon boobu it tërbiyee la ko def. di bay di dunde dañ fi nekk ab diir mu jàll ñu wax bilal orda mhm. foofu it nekk na fa ab diir moom it soo fa jógee dem mhm. fële ayatoo mhm. ca Taïf boori Taïf moom it nee fa ab diir ak bokk yi ak taalibe yi di leen fa tarbiya ba ñu bari foofu la leen tarbiya tayif waaw ci bilo kii ayato ayato waaw diggante ayato ak benn dëkk bi mu sancaat ñuy wax waadaam sorewut foofu nag fa la mujj ndeysaan ca la jógee sanci waadaam nekk fa ba ay jamono yu mujj foofu la mujjee diir bu yàgg nga xam ne waadaam la nekk ba ni fay jógee foofu la wàcc bi liggéey nde Tuubaa ci église Tuubaa kon dafa ñibbisi dafa ñibbisi bi mu amee ay wér di yaram ci ci gi suñ fàlloo ko jëli indi ko mu fii ci wàcce bi ah, mi ngi fii ci këru Touba gi ak Saïd masha Allah moom ci jamono suñ Mamadou Fadal ci la wàccub liggéey waaw mel na ni ñoo ngi sant bu baax àndoon ak kilifa yu tedd di sëriñ Mamor Mbacke di euh, doom ci wala bokk di seet ci sëriñ Saïd waaye ànd ak sëriñ Saliou di seet ci sëriñ Saïd ñoo ngi leen baax te di leen siyaara di am mbégte ci ñoom bu baax a baax ci jotaay bi xam ne àndoon nañ ko ak ñoom mel na ni bi dañoo toll ci yëkkati ndax li ñu amoon ci temps dafa mi ngi bëgg a mi ngi bëgg a jeex. dañuy dem ci sëriñ Saliou li nga xam ne te root na ci sa xel ca euh, temps bi mayuñu ñu mën koo laaj nga defal ñu ci ak tënk rek bisimilah sëriñ Saliou waaw jërëjëf sëñ Abdou Lahad ginnaaw waxtu kii noom daanaka koy gàtt lool rek ndax sëñ Seyid moom daa doonoon koo xam ne daa jaay bokk gi mu am ak sëñ bi yëpp jëndee ko taalibe biir taalibe googu ci la tàggat ak njabootam ndax waxoon na leen ne ku fi nekkal sëñ Tuubaa donte jigéen la na ngeen xam ne moo leen moom loolu sëñ Seyid dénkaane woon na ko ci ginnaawam te it bi mu fiy nekk moom ay njabootam moo leen yaral boppam ak njabootu suñ Mbàkke ñaaw ak suñ ak taalibe bi mu yoroon moom bu fi ne moom ñaar la mos a joxe si suñ Abdou Latif Mbàkke ak suñ Xawsu Mbàkke waaye fa mu leen joxe da leen faa jëlee yaral leen boppam. ginaa bi fi jógee nag day mel ni ñi mu yarutoon nga xam dañoo doon ndaw ba mu fiy jógee ku ci ne jël sa bopp dem jox ko dem ci kër suñ Tuubaa mm-hmm. dem ci jaa jaayante ji ak doomi suñ Tuubaa ji nga tombeel kon defe naa kilifa mas maa wax ne suñ Xawsu sëñ sëñ Cheikh Touba moo ko ne sëñ sëñ Sayid de moo waxoon moom la sëñ xaw si wax nag man ne sëñ Sayid yi ko ma yéem la ndax day mel ni bi mu fi nekk njabootam gi mu fi loon moo leen yaral boppam bi mu fi jógee ñi mu juttoon a yar demal seen bopp ci kër amul doomi sëñ Sayid ju jàpp ci loxoom yóbbu ci kër kër doomi sëñ Touba ku ci ne yaa sëñ Mansour ak sëñ Alaaji ak sëñ Cheikh Touba moomu ma ca des ndax Cheikh Touba na ma bi seen bàyyi di dund Mm, àndoon naag suñu El Hadji ngir bëgg a wutib sëriñ maa bëgg a wut ku njaayanteel biñ rombee si mu def fi tàggu ko nag mu ne leen li fekk seen bàyyi dund waru leen fi jóge di wut kenn ku ngeen jaayanteel bu ngeen toogee bu gisut leen ko nag neex dem ginnaaw bi fi seen bàyyi jóge lañ doog dem jaayante ci seen Abdou Khadre suñ sal ginnaaw bàyyam suñu El Hadji eh, mii nga xam ne moo newoon ci kër suñu tuwaagu jógee Daaru Salaam ngir jaayante ji ak suñ fàllu waajur mu jigéen boobu mi daa jógee Mbacke dem fekk si Mor Boussa ñaaw Touba ne ko man de Alaaji Mbacke damaa dégg ñu daa dem Njaareem daa dem Kër Sëñ Fallou mu ne ko waaw loo ci bëggoon nag mu ne ko xaa jëli ko mun ko jëli fii mu toll dem dem dem dem dem ci Sëñ Fallou ba bàyyi mu toll la demoon la demoon Njaareem fekk Sëñ Touba loolu moom mm, day mel ni ku xam jamono boobu fu suñu laaj tolloon da nga xam suñu ndax suñu Mor Boussa moo gunge woon suñu sayit moo wax yaayam lii moo moo wax soxna Mbène Ndiaye ne ko sëñ alaaji fii mu toll nii dem fekk sëñ Fallou mhm. ba fi bàyyam tollee la fekki woon sëñ Sayid kon loolu moom mënees na jee sukkandiku daal ngir xam li nga xamut ngir sukkandiku ngir gëstu ci la nga xamagu doon mhm. li ci toppit mooy li sëñ Mor ju ba ci waadam gi mujj mhm. dafa mel ni mbokk yi daana loolu nañ ko fa ab bërëb ngir fas yéene dundalaat kër ga yeesalaat ko loolee ñu ngi ci woo bokk yëpp mboolem koo ci xam ne am nga pas-pasu barkeelu ca ci soppe wala ci koo xam ne liggéey suñu Tuubaa rek moo la ñor na nga xam ne buntu ngi noonu bokk yi nga xam ne ñoo ko seq yëpp it ñu leen ci soññeetal leen ko fàttali ndax lu yitteel la muy kër sëñ say Mbàkke googu ñu bëgg a yeesalaat foofu ci dëkk boobu di waa kër daam kon sëñ daal ñu taxawlu kàddu yi foofu rek ñaan suñu borom def lépp muy tawfeex te dëppale ko ngërëm suñu borom subhaanahu wa taala wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wasalaamaaleykum wa kon sëñ Maam Mor ñu njëbbalaat la kàddu gi tàggatoo te laabire waa lenn ci li nga xam ne rek teew na sama xel te laaj bi waroon caa yegg ca sunu xel yeggul ci man koo laaj nga mën cee mm, jotal doo ko mën a tàggoo ñu yëkkati jotaay bi incha allahu taala bisimilah sëñ Maamar. waaw ah, jërëjëf sëñ Abdou xam naa rek li sëñ Sall doon junj ci ñi nga xam ne sëñ bi moo leen yoral boppam. waaw fi jógee. waa kër Sëñ Tuubaa yar leen ndax loolu daa doon loo xam ne nii bu demewu noon rek day am leneen lu sikk ci diggante bi te ñoom dong ñoo fi war a nekk ñoo fi war a yar ñoo fi war a defare ginnaaw Sëñ Tuubaa waa kër Sëñ Tuubaa ñoo war defare ndax mu doon boo xoolee sëñ sëñ sëñ Mour affiche loolu mu wax Baye Touba bi fi bi fi jógee bi mu demee ca ca ca kër sëñ bu xaalis baatu waaw moo ma nettali ne man li tax ma xam ne sama baay ci yoon la tey woon na ma gisoon sama baay doon jaamu yàlla laa gis ko xam ne ko jaamu yàlla. loolu paspas la moom la gis ma gisul ko jaamu yàlla. nga xam ne kon loolu mbir la moo xam ne nii am na solo lool ndax ñaa bu loolu ci wàllu Serigne Chahid ci bis bi ñu koy taxawal fii di alxames bii di ñëw. ñu ci woo ñëpp ñu ñu bokkal kër bi mm-hmm. ni ko sëñ say daa waxee mm-hmm. ñi jur ak ñi ko jural fii ba waaye nekk rek ñu ngi lay xamal na la bis bi agsi na mm-hmm. fukk fan juróom-ñaar ci weer wi tombeeg le deux jaar fi ñëw ñu koy defee fii ci Mbàkke mu dëppoo fi mu gënee fi mu gënee jamono du doon am solo loo xam ne histoire la <coughs> ñu si sàkku nag teewaay yi surtout njàngam xasida meeg njàngam alxuraan di alxames biir ñëw incha allah incha allah kon nag ñu taxaw di na Cheikh Amadou Khadim kon ñoo ngi sant bu baax ci mbokk yi nga xam ne ñoom lañ seqaloon jataay bi di Serigne Mamour ak Serigne euh, Abdoulah Salih bi nga xam ne moom lañ amaloon di ci dundal suñu maam ju teer ji Serigne Sahib Mbacke di mbokkam di di mbokkam Serigne Touba dib taalibeem xam naa lépp luñ koy tuddal taalibeem gi moo ko ciy gënal kon ñuy fas yéene waajal bis bi nga xamante ni moom lañ koy moom lañ moom moom lañ koy defal ngir muy bis boo xam ne da ciy jote woon ngërëm tàmbalil ko boppam di ko sant Serigne Touba bay bis mu woote ko ngir ñu sant le ko kon ñoo ngi ciy woo ñëpp bis ba war a doon la 2 novembre euh, ci at mi di 2023 war ko defee fii ci Mbàkke bari ginnaaw raay Euh, programme bi nag ñoo ngi koy door ci waxtu wi nga xamante ni buñ xëyee ci alxamis gi incha allah lu jëm ci jàngum alxuraan njàngum xasida ba euh, bis bi sori lool ci ginnaaw tamit gi dañ leen amal li nga xam ne mooy cérémonie cérémonie bi ci teewaayu kilifa gi di kilifa ak bay Baye Babacar sëñ Mansour ak mboolem ñi nga xam ne ñoo di njabootam bu ñu demee waxtu ne mooy cérémonie bi ànd ko suñ gànnamee seen maxtaar mu fàttali ñu suñ diggante sëriñ suñ maam ji sel suñ maam mbokk yi programme bàngoo ko ñoo woo ñëpp képp koo xam ne mi ngi yewoo leen ci woo di leen woo ci programme di leen woo ci nga xam ne moom la ñuy amal di ko fàttali ko suñ maam muy sant gi nga xamante ne moom lay euh, jote woon ngërëm kon ñoo ngi sant bu baax waa site bi nga xam ne moom lañ amal Euh, ci bis bii ci euh, ci waxtu wi muy asalaamiya ci njiitoon sëriñ Fallou Galas Sylla di ko ñaanal baax sama borom kàttan na ko te yàggal ko ak mboolem njaboot gi nga xam te ne ñoom la àndal di sëriñ Abibu ak euh, sëriñ Mamour ak sëriñ Zanabia jërëjëf ñoo ngi leen sant bu baax te am ci yéen mbégte bu baax waaye rafet na <coughs> jërëjëf lépp yéwén na alhamdulilah ala kulli haal kon mbokk yi bis baa Euh, mbir mangoogu ñoo ngi ci woo ñëpp te ñaan sama borom laahu subhaanahu wa taala euh, def ñu yegg ci ak jàmm ñoo ngi siyaar mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi di siyaar bu baax sëriñ Seex Mbàkke ak sëriñ Modou Touré sama nijaay sëñ Abdou Lahat sëriñ Seex naa ñëpp bàyyiwun keneen sëñ ñu Fall jërëjëf sëñ Seex ak sëñ Seex Bari jërë ngeen jëf alhamdulilah ala kulli haal